dafa attire suñu attention ci sujet bu am solo bi ñuy préparé émission bi tey ci suba mm-hmm. dañ ci defoon débat waxtaan ci nganale dëgg la euh, gan dañu koy ganale mm-hmm. mais lu ëpp nag tuuru dëgg la waaw critiqué ku critiqué ñu kenn xasuñu kenn ndax ëpp ñu fi kenn xam-xam waaye baax na it waaw ñu waxtaan di wax loo xamante ni peut-être jàpp nañ ni moo gën dëgg la Pape Cheikh mm. euh, fi mu ne nii sax euh, balaa may dugg ci sujet boobu mm-hmm. euh, dama leen bëgg a jaajëfal ba pare parce que xam naa ni seen liggéey bi ngeen def bu metti la ndax danga ma yee ma nga fekkoon may dormir nelaw waaye nag euh, dama leen di jaajëfal di leen wax ni yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci dëkk chaque jour di yeewu 4 heures du matin kenn amul seen pay parce que man fi ma toog nii du ma leen ko nëbb de soxol nelaw na nelaw naa dëgg la yenn saay sax man yenn saa yi ba nelaw de yenn saa ma ne leen na ngeen def ñu ngi leen nuyu yeewu leen tàmbali na fekk xol bi nelaw ma itam yëfi euh, manquito yi may nettali yëpp xol bu nelaw koy indi kenn mënu leen fay ndax 4 euh, heures nit ku ko yeewu pour bégal am réew comme waa réew mi war leen leen ñaanal te bàyyi leen xel ndax la man nga xamante ni musuma ko def mhm. tey laa ko door a def quatre heures du matin la ma Raphaël yee te léegi da nga ñëw chaque jour eh, eh. <laughs> Mati Mati bàyyee noonu rek xam naa ne gars dama doon remplacer Pape Cheikh rek waaye tubaarkàlla damay ñaanal Sénégal yëpp. ñu mhm. ñaanal leen te xam ne yéen am ngeen volonté te bëgg ngeen li ngeen def. Mhm. ndax 4 heures du matin ku ko yeew di wax ba 10 heures. tubaarkàlla. métti na ñaan na leen yàlla léegi ñaari liggéey ñaari liggéey laa yor leen fajar gi ak coordination Kouthia métti na ñaar laay <laughs> ñaari liggéey fecc ma ca ne rek xoolal voilà fecc ma ca ne rek <laughs> masha léegi nag euh, ñu jublu ci li nga xamante ni moom moo ñu tax a ñëw muy li nga xamante ni nekkul gën a xam mhm. nekkul it gën a kii ndax ñantoog toog yóbbu seen ujaaj ñoo ñu gën a xam ñoo ndax ku jóge màkka mhm. la kooku jar na def lépp jaar mhm. na wàcce lépp mhm. mais def ci am lu ñu seetlu loo xamante ni yàq la ak day indi féewaloo ci biir famille yi loolu lañ bëggoon puukare bi mhm. ñu waxtaan ci bu baax a baax ndax euh, am na ñoo xamante ni bi may début may débuté kii bi ñu may ñoo xam ne dégluwuñu ma ñi nga xamante ni seen goro moo jóge màkka ñu euh, ñi nga xamante ni seeni goro yu ndaw ndawaan dafa am yu leen war ci nganale gi loolu nag dafa dem ba indi ay féewale ci biir sëy yëngal kër yi lool loolu laa bëggoon ñu waxtaan ci pour nga xamante ni goro yi ñi nga xam seen jëkkër amul se doole ñu jàppale leen ba nga xamante ni daal dinañ def ci nganale gi ci jàmm te kenn du mer. du sax euh, goro yi rek sa jëkkër dafay jóge màkk fekk fii maanaam ñaari jabar ku mel ni Alfie ak Besser mii sa njëkke jóge màkk du keroog sa nganale dañ doon yebbi ah, yooyu yëpp nag kaay ma wax la maanaam ñun ñoo ko bëgg mhm. mais li ñu digle mhm. màkk ak coono ga fa ku fa dem ak ku fa demul xam nga coono ba fa ne. Mhm. parce que booy waajal ci lañ lay wax ni waajalal. ba pare del dox lu bëri. jamono neexul aussi jamono neexul. Mhm. nga bëgg a póot. def ndànk ni nit ñi defee xew. bëgg a yebbi mhm. bëgg ku la lebaloon junni. nga bëgg mu ñëw fay si la fukki junni nga bëgg a togg añ bëgg a togg reer bëgg a mm-hmm. togg njogonaan mm-hmm. bëgg a jëndi kanet mm-hmm. ah bu njëkk di li ñu dégle woon ci màkk mooy boo ñëwee nga séddale sam-sam joxe kurus joxe kaala waaye léegi nag dafa mel ni que ni sénégal yi dañ ci dañ cee dañ cee dañ cee ëppal bor la bor la du ñëpp koy def c'est vrai mais euh, seetlu léegi jigéen ñi bu ñu leen mayee billet màkka wala ñeneen ñu may leen billet màkka dañuy tiit xamul tax ñuy tiit mhm. mooy bu ñu ñibbisee dépense la ak teraanga yi mhm. te boo ko deful ñu wax la ko mhm. ñu wax la ko parce que li may wax nii dama ko dund te bëgguma ñeneen dund ko moo tax ma insister si pour ñi nga xamante ni seen jëkkër amul doole te seen goro noo ko dundee nettali ñu ko ñu xam parce que nettali itam ci mooy que def te munoo def ah. bëgg def te munoo def. parce que ñëpp a ngi def. as gor mënu ko as gor xam nga. Mhm. tey jii nekk sama jëkkër. Mhm. si yaayam dem Màkka mu mhm. am beneen frère boo xam ne am na doole. man sama jëkkër amul doole. ma bëgg def te munuma def. léegi su ko defee. njëkk yi ndaw ndawaan yi mel ni dërëm mhm. ñooy ne ci biir xew bi waaye kii de moom xam nga kee indi na boisson indi na teraanga pour një mhm. mhm. yi sew yeeg ah. moom na féetewoo teg raxasu mi rek ah xam nga yooyu da lay mi amul lebi woo waaw a ngi la ko cher indil la suukaru koor indil la yëre tabaski bor baa nga ko topp wallaahi kon yow mi amul te yem ci li nga am santal yàlla ndax soo tëddee di nga nalaw ba ba ba pare li ci gën moom mhm. euh, euh, des fois ñaari jabar yooyu mhm. kenn ki mën naa am euh, xaalis jënd nag mhm. yeew ak yeew ka nga xam ne mënta am bëy moom du jar ceeb nga ne la gën dara dañ koy yónnee dañ koy tuutil daal maanaam dañ koy dañ koy mooy séddale ay moom la ñuy wax mais Pape Cheikh Pape Cheikh tamit est-ce que jotul dërëm nit ñi xalaat ne màkk lañu jóge mm-hmm. yow yàlla nga wuti ji mm-hmm. wàññi say bàkkaar mm-hmm. dem jaamu yàlla dem jaamu ziyaar euh, dem euh, ziyaar Seyduna Muhammad est-ce que tamit jotul ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem màkk ñoom ñu bañ parce que boo xoolee coono bi ngay daj bu fekkee yow da ngay ñibbi si màkka soo ñibbisee màkka encore beneen bàkkaar moo ciy amaat ak féewale est loolu jar na ko man je me dis que ganale baña a ganale sax mhm. man de man beseel man laa wax de bés bu ma fa yàlla yóbboon te loolu laa koy ñaan mhm. duma ganale duma man déjà ñëpp xam nañ ma affaire de xew bokkuma ci. Mhm. parce que Pape Cheikh dafa am loo xam ne tey mu ngi am nii nii may wax ak yéen. ci benn kër ñu ngi may envoyé message sànq ba léegi. mu ngi nekk actuellement di indi sax problème ndax affaire ganale mag ah ay ñoo xam ne dañu bokk ndey ak baay. ñii dañu lii. ñi nga xamante ne seen néew dañu néew doole li ñu indi ñu ngi commencé di ko critiquer lan moo ko jaax pour lan parce que kooku dem na màkka dañ ko war a ganale mais nit ki li mu am lay joxe munoo joxe li nga xamante ne munul nekk ñeneen ñi gis nañ ci seen bopp parce que nee nañu waaw xëy na bu demee woon nii du ñu du ñu xeebee nii wala nangam ak nangam kon daal nañu xoolaat bu baax a baax bu fekkee ganale màkka yi dafay indi problème nañu teg ganale màkk fële mm-hmm. nga daal dem toogi ji noppale ko jël sa kurus gi gën a delloo sa bopp ci yàlla man ci sama xam-xam bu gàtt waaw laay laay wax joxe sérité jeex na mm-hmm. tàndarma zam-zam mm-hmm. yematuñ ci de yematuñ nga tànk mu nga may dañ la koy defal ak loolu kenn bañu non d'accord nañu ganal bu jógee mais ganal ak féewuloo bi mais daal ganale sa nag togg tamit est-ce que bu fi nekkoon sax mu dindi ñu ci est-ce que l'islam santaane ganale on va on va dañuy téye waat sujet bi pour vendredi voilà pour loolu euh, xëj na mu tombeek oustaz Pape mais Pape euh, gis nga gis nga aj maanaam euh, aj bi nga aj bi laa bëgg a wax que ni dem na Makka fu mm. jaamul sax euh, maanaam talul sax mm. la mu war yëpp mu def ko ndax moo ngay xalaat mm. la muy terlee bu ñëwee donc kon nañ ci bàyyi xel bu baax lu am solo ñu waxtaan bi ak dërëm waaw Pape ku jóge ci yonent ba loo ko defal jar na ko foofu mu petit poids ku jóge ci yonent ba loo ko defal jar na ko loo ko defal mais dafa am ay puukare yu ci rax yooyu moo tax ñuy waxtaan mm. pour que ni ñu ñu xoolaat doxalin bi bu baax a baax te nganale mm-hmm. ndax nganale gi am na ci solo mm-hmm. jàng yi jox nit ñi bernde yi ñu teg ko ci yoon bàyyi ay sew yi nga xamante ni jigéen dañ ko ci rax te mm-hmm. bokk ci loolu moo waral waxtaan wi te xam naa ne dinañ ko gën a yaatu dinañ ko dañ koy àggali sax vendredi prochain dina fekk euh, dina fekk oustaz Pape Anne ñëw ana bu doon petit pois lu am tey lan corne bœuf moo am corne bœuf ak lan temps amul temps temps bu am kaani. dama jox mburu corne ba foofu toppal. am na corne ok pot sardine nag. ok su ma xëytee mën naa laa seet mburu corne ba. waaw damay am sandwich am ndambe am thon. mais damay indi eh, man eh, man thon man moom dara bi tayal thon.